allo waaw man maa ngi tudd Khady euh, Khadija maa ngi Espagne mais li may wax ci série bi lenn rek moom fi xaw a nakari mooy euh, sénégalais yi liñ doon wax ci série bi naan dugg na fii génn na fii xam nga euh, ay théâtre ay ay film ay série bari na Sénégal trop trop trop yàgg na fi tam mais jamais jamais de la vie ñu gis série bu yeete nii ci Sénégal. encore dafa yéete si mama yi ñu war a jàpp seen doom dafa yéete si xale yu jigéen yi comme ça ñu bañ a fay seen bopp euh, dafa yéete lu bari bari bari daal si Sénégal mais lépp lépp lu si am mu ngi biir Sénégal am na ay marabu yu si génnoon di wax ay débat xam nga seen débat yi jarul fenn génnul fen ndaxte hmm, maîtresse li mu li mu def ci Sénégal benn série defu ko fa vraiment neex na ma trop trop trop man duma ko duma ko tardé mu même samay doom yi dañ koy seetaan dañ koy seetaan mais neex na ma trop man de li may wax mooy euh, lenn rek moo ma si metti mooy en tant que Sénégal euh, jabaru Cheikh bu mag bi dama fàttali tur bi euh, deuxième femme bi deuxième femme bi xam naa ne Marème la tuddu mais première bi dama fàttali tur bi mais c'est pas le pelle parce que maa ngi koy seetaan toujours warul warul def nii warul def li muy def ndaxte. ñun suñu culture Sénégal sénégalais en deux cent femmes ba trois cent femmes mën nga ko am mais warul def nii parce que baaxul daal euh, vraiment euh, loolu rek moo na nakkari si bi daf ko waroon a accepter mais métti na ma ndax Mariam bi mu bi mu marié jour mariage Euh, moom moo ko ko yàqal daal te te loolu am suñu culture la dafa neex euh, deuxième fois bi man mariage bi neex na ma euh, fête bi neex na ma mais dañu ba dañu waroon bàyyi mariem comme sax mu mu mu feetu feetam daal mu mu mu nekk ak jëkkëram su bu nekkoon benn jour la sax xam nga dafay neex mais jabaru première femme bi ni mu def def moom neexuma parce que ñun duñu ay ay nasaraan xam nga ba muy war a def nii parce que genre yooyu ay nasaraan rek ñoo koy def kam ba ñu yàq seen sëy daal mais loolu daal loolu rek moo ma si nakkari mais tout tout tout neex na ma yëpp neex na ma film bi neex na ma Jalika moom jigéen bu baax la Jalika ak Mariam ñoom neex nañ ma ndaxte dañu dañu dañu kii daal Euh, euh, seen seen style yi style si sénégalais vrai la daal neex na ma trop defuñu ay greffage defuñu ay maquillé euh, dafa def suñu culture bu rafet dañu def ñoom ñaar lool daal moom moom laa amoon li ma siy wax ngeen baal ma nag su ma amee fot <laughs> bu ndaw ak yooyu parce que dama yàgg Espagne ok merci c'est Khadija ok merci ciao. asalaamaaleykum maa ngi leen di ziar mbokk yi nga xamante ne si ñoo ngi suivre. au quotidien maîtresse d'un homme marié donc théâtre la boo xamante ne si vraiment neex na macha allah donc li tax mu neex aussi dafa raar dafa bëri ay particularité par rapport ak yeneen peut-être donc ma ci commencé ci relation bi nga xamante ne si am na diggante Moustapha ak euh, ak Racky relation bu ma neex nag très sincèrement parce que tout au début vraiment boo xamee vraiment góor jigéen di nga xam ni rakk donc dafa tombé amoureux euh, amoureuse ci Moustapha Moustapha aussi guerrier parce que dafa comprendre rakk nag waaw da ko comprendre parce que bëri na góor yoo xam ne su doon ñoom fi ñu egg ak fa egg ak moom ñu ko comprendre xam lii metti ci biir xolom mu def tout muy def tout vraiment pour jëm ko génne quoi pour jéem ko divertir di ko fekk yaayam ay heure de heure yu euh, suuf sedde quoi di ko génne waxtaan ak moom ainsi de suite di ko dund loolu musul dund quoi de telle sorte que rek dafa dem ba mujj xam nga di fàtte problème yi quoi di fàtte lim vivroon lim daj ainsi de suite genre quoi donc mu nekk diggante boo xamante ne si donc rek day xam ni kii moom très sincèrement moom kese la xamante ne si donc donc bëgg na ko. mais ay ñeneen di ñëw di ko jox xaalis comme Pape Jalika bi ainsi de genre ku ci nekk topp ko bien vrai que ñoom ñoo gën a situé wu ñoo gën a placé wu financièrement Moustapha sax mais mbëggeel vraiment dépendre foofu quoi waaw loolu moom relation bi ma gën a neex boobu ci la bokk quoi gis ngeen Jalika aussi gaan bi ko invité waaw lu nekk mi ngi naan lu nekk mën na ci am quoi mais Jalika warul woon wax lool nag quoi. naa ko yaa ngi insisté xam nga lu nekk mën na ci am ainsi de suite quoi loolu boo ko bàyyee góor parfois am na góor ñoo xam ne vraiment ay profiteurs lañ quoi ay opportunistes lañ donc da di may fit quoi de telle sorte que tam nga ñëw ñu bëgg nga xam ne bëgg dara ci yow quoi wax boobu mu wax dara war koon wax quoi war ko woo téléphone quoi mun ko yaa ngi insisté et puis ren diine la mais lu nekk mën na ci am war koon wax quoi waaw maa ngi leen jaajëfal waaw beneen bi mooy si lalla laa bëggoon a wax tuuti rek. Lalla Lalla man neexoon na ma loolu mais dama ko mere benn instant quoi parce que li tax ma mere ko mooy euh, moom bu nekkee ne moom gëm sa bopp bi mu doon wootee dëgg la kon moom warutoon a nekk di dof dof loog di def naka sudu noonu moom war na mën a gën boppam taxawoo taxaw affronté mareem waaw wan na ko carrément man jéeg biir kër loolu moo doon nekkoon la ak fayda mais di daw xam nga di feebar di naan dafa dof ak dafa nii xam nga loolu dangay ngay gën a yeblu sa bopp sax da tax sax yow ndaw si dalay yeb waaw da tax sax yow sa wujju dalay yeb wujju lan la wuju wuju du dara te ba li ma gën a naqari mooy balaa may dee mu naan sama seex sama mene moom moo ko moom mais seex ñëpp ko bokk seex am na droit am ñetti jabar ba ñeent waaw kon moom rek moomu ko bu toogee ñu ne ko seex may nañ ko euh, jabar moom lu booru see def lu dul sant yàlla ànd seeg moom yaa ngi dégg ak lu mu mer mer mer mer war tam mën a euh, def dara loo xamante nii rek ay ay ay ay nawleem dañ koy xeeb na tey jii euh, bi seex takkee noonu lu mu ko laaj si takku dënn xam naa ne seex dina ko jox lu mu ko laaj rek dina ko jox mais lan la na toog affronté ko lan la maram jigéen la muy jigéen na taxaw affronté ko man daal loolu laa gis waaw maram nag fi ma ko meree mooy fii li muy nekk di sañ xel seex di ko sànni ay xeer rek xam nga foofu loolu moom mere naa ko si moom wax dëgg yàlla waaw parce que tey jii seex tey jii laala li ko dal ni yëpp waaw seex mook ko teg waaw seex moo ko teg ndax bëggeel gum bëgg maram moo tax waaw kon mag wax dëgg yàlla waru ko woon a ak yére nii daal moom waroon naa bësante xolam rek waaw maa ngi dégg benn gaañan bu koy wax léegi naan Marème wartoon a réagir noonu mais man moom laa àndal Marème wartoon a noonu waaw wartoon a noonu vraiment série bi neex na lool liñ ci mën a wax bari na liñ si wax mën a mën a wax bari na. asalaamaaleykum wàllu xew TV na ngeen def mbaa yéen si jàmm. ñu ngi leen di nuyu ñëpp di leen euh, ziar bu baax mboolem kuy dégg suñ kàddu rek ñu ngi koy nuyu di ko ziar waaw di leen ñaanal yàlla bu baax waaw di wax ci série bi série bi macha allah neex na am na solo lool wax dëgg yàlla mais man série bi ni ma si gën a marqué mooy Racky ak Tafa man ñoom ñaar seen couple daf ma neex waaw seen ànd moom daf ma neex quoi su ma leen seetaan man damay sentir sama bopp yàlla xam na ko damay sentir bopp waaw ni ñu àndee dafa neex Eh, kontaan nañ ci trop séer bi neex na trop wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla yàlla na si yàlla def jaamu. waa salaamaaleykum bi maa ngi leen di nuyu leen ziar di wax naa damay ñëw andi sama xalaat si épisode trente bi waa man nag si lala laay dal parce lala. waruñu ko takkal wuj muy dof du fekkoon ne jigéen bu ñu takkal wuj ngay dof kon jigéen ñi yaakaar naa ñëppay dof parce que wuje wuje daal teguma ko lu metti parce que xale léegi nii góori léegi bàyyiwuñ la ba nga doon meer ñu takk xale tegal la ko sa wet dañuy takk sa moroom tegal la ko sa wet ah ngay jaay jongama muy jaay jongama lan la warul woon a dof te itam mareem li mu def am na droit def ko dafa soxla jëkkëram yoon la mu soxla jëkkëram Cheikh war a dem si bàyyi lala fa mu nekk dem si mareem parce que dafa takk mareem si farata si yàlla ak sunas Muhammad yaa ngi dégg mareem li mu def man gisuma ci fat ñu takk la sa wuj wéradi nga dem seeti ko loolu it yaakaar naa bëg jàmm rek la Marème bëgg moo tax mu def loolu maa leen di bu baax leen ñaanal jàmm di dellusiwaat seen épisode bi rek joxewaat sama xalaat. Uh-huh. salaamaaleykum ça va su ngeen nekk na ngeen gis ci bu baax kon ni bii comme nuyu naa leen waa maa ngi Mauritanie nag uh-huh. man daal laal la àndal laal la. laal la moom wax dëgg yàlla ak jigéenu muñkat la jigéen ju baax la mhm. Jalika moom it macha allah mention spécial Jalika Jalika ku baax la ku baax la vraiment baax na trop Marème moom it xol bi dara nekku ci waaye biram moom mooy loolu moom biram moom mooy loolu waaye lii nag dafa neex wax dëgg yàlla mi ngi yeete de wax dëgg mi ngi yeete mi ngi yeete ci kër mi ngi yeete ci góor ni mi ngi yeete ci jigéen ñi waaw ñoo ngi leen di ñaanal ci kaw ci kanam ci kaw ci yàlla kontaan nañ trop vraiment. salaamaaleykum comment tu vas ça man daal tey dama bëgg wax ci maîtresse d'un franchement Jalika. neex na ma torop Dialy dafa am fulla am fayda caractère boo xamante ne que bépp jigéen bu ko am doo rus kenn du la yab caractère bi dafa ma neex te na ma ko yàgg suivre gone la waaye dafa mën la def macha allah di ko wax ci courage film bi neex na am na important boo koy suivre daf lay jàngal lu bare bare bare bare franchement Dialy moom rôle mën na ko. neex na moom moom moom daal film bi moom moom ma ci gën a neex man jàlli moom ma ci gën a neex parce que dafa am caractère nekk mère de famille boo xamante ne bëgg ay doomam toppatoo njabootam fonk liggéeyam donc loolu neex na ma ci moom franchement waaye di ko wax benn affaire que mu moytu bu baax parce que damay bañ li dal euh, Eva bu Pod et Marichou mu dal ko parce que waa ji mu bëgg àndal déjà moom xamul waa kal la xamul xamu ko xam xamul famem donc na ci tey daal na ci tey bu baax na bañ na ma na bañ ci oppal parce que kenn xamul on sait jamais kenn xamul ndax euh, waa am na jabar ba am ay doom kenn xamul donc loolu noonu boo ko dalee rek Marème dina ko reetaan te dina rus te man defet Jalika sama defet la moo tax euh, ma joxe benn en fait ma joxe sama conseil bu ndaw que mu tey ci waaju bu baax wala mu mu kii mu wut ay information fu mu dëkk ak ay famille mu xam daal moo gën waaw parce que gis naa ne invitation de restaurant bi neexoon na mais na ci tey na ci tey parce que bëgguma ëllëg ñoom ma dem di ko reetaan parce que loolu boo amee rek gàcceem la mais mun na li muy def macha allah neex na ma ci torop Euh, fulla bi ak fayda bi nekk ci moom saf na ma ah, merci. ça va salaamaaleykum ah, man de dama dama ci YouTube bi ma gis question li ñuy laaj ci maîtresse maîtresse que ni papaay Racky euh, euh, paa bi liggéey ci chantier mooy papaay Racky waaw loolu tamit mën na nekk de. parce que boo gisee rakk yi yërmande bi mu am ci paa bi te paa aussi tam chaque jour muy teg bëtam ci rakk yi loolu tamit mën na nekk biram ak joor tamit boppam seen diggante moom bëggee lal na fi moom yërmande di joor di dimbali biram mi ngi ci mais tamit gëm naa ne mbëggeel bi moo ëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah ah, sëñ bi na def va yaa ngi ci jàmm waaw man dama bëggoon pass bokk ci seen commentaire yi euh, pour que kaawu Mariam lay wax Mariam ko demee euh, nu mu koy waxee sax maanaam nit la daal dafa yar xol dafay yëg daal dafay sentir euh, parce que seex mënu kaa takk ba pare voilà teg ko noonu xam nga comme benn objet rek teg ko noonu di ko xool mu koy xool comme si kon nañu dafa kii dafa feebar lala te pourtant kenn yi lala lu ko dal moo ko teg boppam parce que aaw yi dañoo bëri caprice man loolu moo metti ci aaw yi dañoo bëri caprice déjà yow wujjooyee dong jar na lii nii ngay xam nga dem abandonné sa kër dem tëdd sa benn ci quatre pour pour ndax la ndax wujju ah léegi Cheikh bëgg a patienté loo Mariam pour pour pour kaawu Lalla pour Lalla ah. nekkaat est-ce que bu Lalla nekkaatee dina accepté Marème moom loolu mooy sama problème ah quant à kaawu jox ak biram man moom euh, si ma doon jox damay teel a wax ak Jalika balaa problème bi di gën a aggravé wu wax ak Jalika parce que Jalika déjà xam na kon mooy jëkkëram ba pare su la may jox damay teel a wax ak moom daal expliqué ko kaa bi nu mu demee ah sama xalaat man loolu laa gis maa ngi leen di gërëm di leen sant.